moodu de nit ñi de boloo teebulu mu ne amuñ ba dëgg fentan koo xam ne amul dara ka bala faaye yërëm ko wala koyta loolu moo gën a wóor janni be ñaa boolaa fe ah bala nga koy ñe annaasu kulluhum annaasu kulluhum fuqara fuqara ya ayuha annas ya ayuha annas antumul fuqara antumul fuqara ade fentan kumun ñëpp dañ ñàkk ñëpp kenn amul dara dara lañ amul jumaal ba kaarita an kan moo am aram duma la ka arja ana kan mo mo ma soto ken amu ni lafdala soko buge ya soto dulalo nga xam fuñ ko amé min ate dami fu mu nekkut ikata wutu mu ne la lu tax nga fay dem di ko fa sakk te amul abe dami amul fu mu amul bébé kaña ndingi ñep em foofu am be nga ta ala am doo dem foofu ndax nga amul am andu ni fudada alama te soo àggee ci yàlla aka foyle inaata diile daf lay wax ne noo ñëwee inaata ñaa diile noo ñëwee nikaye nata mumakoyi nsone ko ñewnanga dimbale ma iɓeyre makoyi feŋotela muniti sumala joxe li ma lay dimbale loo koy def fonsi balu ndax ma mun a dund an ŋa di moolu le la niŋ wolu bee miiree la baluwo la itete balu la mu ne jox naa ko ñoo xam ne su fekkee dañ doon xelaat seen dund yow doo dund kon ni man naa moo la baluwo ñi ni su fekkee ñëw la ngir sàkk dund keneen ku dul yow ala kaa fo ye konkoo domondiŋo le nene badu warama bi tata yàlla ne ko li nga li nga li nga mos si xiif loolu lu ndaw lu ndaw lu ndaw la lu gën a ëpp loolu dinaa la ko teg kii laa ko mu ne yéen tam sala sa dafa ne alaa fo moo kujawoli ye kaakante toof waxal wax la nit ñu bon ñi buñ ma tudd buñ ma di tudd ni mi yen kilim baa kili la le képp ku ma oo dinaa ko oo andi nin tooñeer laa leen kilim bee killa le te tooñkat yi suñ ma ooyee dinaa leen oo de a kon nun nee kilon bee dankala le te su ma o ooyee dama leen rëbb man fata moolu ma waaye bàyyil nit ñi itee toola noo la ni wala bee kono su fekkee lor nit ñi moo nekk ñëw doo mun a lor kenn fete fatee faŋo ma waaye bàyyil sa bopp itee fankan ni noo la ni wala bee kono su fekkee da nga munjal sa bopp da nga bugg a musal sa bopp doo mun a sa bopp waaye ala la bundaa caaboo be ma ne caabi yàlla ci loxo ni ñi la nekk soppul nit ñi nga boo leen alala bunda caaboobe baadi yàlla kono cejee mu ne mbokk caabi mbokk ci yàlla la nekk ci mbokk la nekk jël ko ci mbokk alala di sooroo caaboobe diinoo la kono kaati yàlla caabi mayaam ci diine la nekk nekkul ci diine rek nga ñoo tooroo bu nañ bàyyi lorante musukunda bee ti ñaata ah soo si soxna yi moom wax noppi ah. wax noppi e ko ciiliya ah, ñu ne euh, fiir fiir iliya fiir seytaani la mu mu ne fiir de moom seytaane rek seytaani la mu fiiraange moom seytaane rek yaalan dode sari kala mundundalankoolu ka waado ɗo conna abdourahmane mu ne ceerno abdourahmane aka ɓoyo je ceelitade léego léego mu faral góor yi war ndega min fo waaye man may wax min na tiñaa bu kaa tiñaa koo xam ne yàqam du ko yàq way ni tiñaate bàyyi la way tiñaa koo xam ne ñàkk du mun a su fekkee yàqu du mun a ñàkk moom na yàqu min na tiñaa naa ke da fen bu ka dadaa koo xam ne su yàqoo dara du mun a defaru otuma way dadaa kooku nañ ko defar kon wallahi muso waaye jigéen i si naa lee tooñoo i mune sa wujju sula toñe nanga muñ ikele toñe sabarita sa jeker su fekke toñna la nga muñ be pudara lumay keni sinani keni adi unani sinana adi wital tamuy be mune sa jeker ak sa wujju ak sen domi ya len mom ital tama beji ya mom lepp su fekke muñ nga mune ko mané sanna fene mune lek su fekke amna fene naa bonta sanna fuutiyoo kan su fekkee dañ ko toggal laax soow mi tuur ci kaw laax mi wallaay doomoo le diyaat te lekk bi moom moom moom laax mi moom moom soow mi muñ a dorong waaye jigéen yi nañ muñ rek pour bu lay mooyee bang problème bi dina jeex musool yee muñ a dorong jigéen yi nañ mun problème mooy ba problème bi dina jeex ni musoo baaloon na su fekkee soxna dina xam dundaa bee tooñee mooy kéeti waaw su fekkee ci wàllu jigéen ñi ñëpp nañ lay tooñ ngay muñ wan bundu ndaa bee tooñee mooyee keedi mm, képp koo xam ne ñu ngi koy tooj ci waaj yow muña yow na nga muñ ci itam maala bee miira la yow rek yaay xel itam maala bee kumboo la yow rek yaay jooy ini wusi jale sa doom yi dina ayee kee mara nga jóg sa ayee labaw jalandi mm, mu sa ayee siinaalu mu euh, euh, tiye wu jam yi ay ayaa jiwlu mara mu tiye doomam yi moolu yow mu ne nit ñi gis loolu fii yaa seede yaa te seede nañ ko muske ba hayna na tingeej mu ne am na benn soxna maget bu nekk tingeej ako eh, keedoolam mu ne dafa am benn góor abe wakaam mu ngi wakaam ay musu fula la ñaari soxna la denc ñi musudoo soxna si le inene naama ina nenini woman sonka doot musuta xuloo ak moom musuñoo seq xuloo ala ñi musudoo waaye soxna sala waati waati sonko waxtu bu nekk xuloo rek baranin min ka songa waaye ki muy xulool wadiwul gëna ministre o ti ah kooku doomam yi de ministre nag e bee gëna place baati ti ñu nekk borom place yi mag ani min boo ka songa ki dul xuloo wolu bee ka looloo ne siloo ah ñoom de dañuy toog si ni wotool bi daa wakaam wakaam wakaam i oto ne wakaam wakaam wakaam wakaam ah ibi jee <laughs> ñu nekk foofu Lundo e daane fidiro do ah am benna bes ñu dem julli timis iko ko ko koleyaata de ah ñu ne mbirum yalla jafé na de iko ñi musu fulol ñu ne ñaari soxna yi ne ma ñi ke ma diam ko moy dot musma dëgg ki digantam ak jakaram baat wo dinkilim mam baraka do mam tekku dara ñin na ke ma be songala dorong ki nak bes bu ay bu nekk ma jakaram wo diwlu bee baraka de ah do mam mi de tekk nak dara ke fon kana góor baa ngay ñëw dogo ndaba ngi nin kala am benn waay boo xam ne man de su fi ak saret naa ko laajtee lu tax loolu abdara je kay ke ba heka bi ma àggee ñu ne ko góor gi baalal ñu àq de ida la ñu musu fu loolu yow sa ñaari soxna yi ndol ñeena musoo min jeyi ñun sa jabar bi nga xam ne moom lañ tagg o diwul man ke fenti ah kooku de ma muy tekkuñ dara de eyik nga wela muso min meɓatu so jabar mi yaw ne ñine toppula te bugul la xuloo bés bu nekka wala ye diŋol keda ñin ah, muɓa kooku de ɗoma mi nekk na gori mag ci sénégal a koyede naman keden si ala muta la mu ne leen su fekkee mbir mi melu nii dina sikk yàlla a ko naman keden su melu nii a kon si ala muta kuula billaa dina sikk yàlla i kay mu ne ñinke ñu ne lu lu lu waral li ñu ne ko lu waral li akoye nañu muso min naa ka sonka mu ne leen soxna su nga xam ne ngeen ay gis bés bu nekk maa ngi xulo ak moom nin te lafita cini diima domo la suma ma buggee lekk ñam bu neex wolun ni ñi ka sonkale kero damay xuloo ak moom na sonkoo kaa seen domoo dewu suñu xuloo daf koy xatal aka silang mu ragal loo ko nin naa kuyaata doroŋ su ma juwoo ak moom rek asilaamar seedo mu dem marché feŋ feŋ diyaata lépp lu neex feŋ feŋ beteyaata lépp lu baax a saa bee sanna lépp mu jënd ko a ko seytaani naatan jee ah mu ne seytaani ñëw ne su ma jëkkër a yen dun kuma foo la min te footaade ah mu waxal wax loo ma loo xam ne du ma waruma koo wax ŋaafoo ma wax ko bari ala naata waaye yàlla ñëw na nimesatan fooku moo la ma rëccu naa yam fam ma jéggal ma suma jëkkër yam fam ma jéggal ma domoroo je lekkal waaye ati laaraŋo feene mu daldi lal lal bi ni nfudara laaraŋo to su agee ci lal bi a kaa ceekuuten na mu ne ko a ah, bari bii ŋaalon ko mu ne ko man de affaire jëkkër koy gisoo sumaaya waaye xam naa sa xel bi sedd na mbe kelee di le de tey dinaa nekk sa de fonsise wono ndax na mum na ni wonde nde sino la budul lo duma ndela ako ngadi wulu be wulu ko mune doma mi yef ci laa leen jur ako ñi musomi ali ka fode ne soxna bi ngeen ay wax ni muy xaqataay bu ngeen ka lo wakam wakam wakam daka daka daka doma mi di taxawalu ci bedd wakam wakam wakam ako ni alama joni nasi ka o kuya ne len su ko yalla fay li dina doy war ako ni su o guda su gudde asafo ñi ñom mo kurum ako yow gor bu bon bi le mo bu ka moy ken du ko degg de ak o ayala faano sirib tek mu daldi oddu malaanam ba mu dëgër akaye lañu musukuruy ɓe laari wala kam mu ne ko sa soxna bu bon bi la ngay faral ngela faanoy taw sirina foye wili fula dinna man suma malaan bi doo ko tekk ba jox ma ñaari junni akon naa ñooje o ñooje ngaa ma gisee ak moom rek su ma tëddee ak moom saa ma tëddee ak moom ñaari junni laa koy fa ako naa man ke daa <laughs> fekkee melu doomam yi meluñ ñii <laughs> dinaa sekk yàlla de والله مزولي سبري من واي جيني نان مون واي دنيا سيديا ادنا بي دال دي نيه الا زينتا يالا جيليو كي لا زينتا يونت بي جيليو دتر لام فامبلو دو نك سني لوخو باب انما يوفى الصابرون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الا ما سون يالا يالا نكو يالا يوم السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مكانكم مكانكم يكو كاي تاندي ديبتي ميمبوتانان غامبيا محمد Banki ba bulumi yalonko anyanta yitandi la asi aya yitandi nu waketa moro edua ke salo eke ngamira okola nsina sherif basi banki bismillah auzubillahi minashaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbe kontondiro fulola kalifa bala memmo cheikh ibrahima suwane ni ayatara atemu samati bi andum kol ko nin be tala a motu kombo le bulu woton salon ko ba ko motu la kombo mem bulu wo felti sirin cheikh abdoulaye suwane nsi diro di ala a ye kontondiro jensendi momondi namaɓe be tajan kani danku ala kiliro la wala mu eh, Cheikh Haydarati dingolu lonnalu ko menu kafuta wolu ka muniya le bari mennu fana muniyata wolu ka kafu alhayba kule na kafu wole na na muniyata wole to wala mu siñoya ñimma aniŋ diinoo wala tun be dawoda mbeje ay momondin kanu mbo kanulale a bulata momondin noma mbe bulalowo nomale a tele dun keta saaboti fo nga cheikh abdoulaye suwane na loŋo lundo mbe tambi kam be radio lamoy kam men be e ka fay fmb aɓe birikama n tambi ka marsel la i bala kaseto pile eh, kan n te tanbito ye kalima kilin ne moyi o kalimo a ko nin ke kan ka sikata santo muso kan ka sikata santo woto wolu dinge wo ke dele ala ñiŋ kumo ŋa ne moyi wotuma a ka diyamu musolu ye puru ye sabari i ma ñolu ye i kema ya fo ite ya fo oto i dinga wo be delale wo kalimo ye ndema ŋa loma fo ŋa ka soto wo tuma musu balandin dole tun be na koño kono wo muso balanta bakele ŋo kaseto lammoyinita la a yo kaseto lammoy a sayita a ye lammoy a sayita a ye lammoy a naatan kan a ko lafita yen samban kemaya ŋata ŋa alasayama ŋa tubo di a la woto nteli manñi muta kawandirlaati nteli ŋa muta hakkiloo jaaralaale ti ni hakkilo maŋ beteya feŋ o feŋ dunta je ami ka sabati bari ni hakkilo dadata a beteyata feŋ o feŋ dunta je a ka sabati le atela la kumoolu ka hakkilolu le beteyandi ka hakkilo fanundi k'a yiriwandi k'a seniyandi fo fɛn o fɛn dun t'a kɔnɔ a sabati n'o la je woto n'a la k'u wulita n'ali manje ala le meŋ ke wo jama moolti bara maŋ ke ŋa maŋ sotoŋ walla fo a feeroo le dasata bari ala le maŋ kiita a la a duŋ sababoo bee keta alhayiba le ti nana jaŋ nsiddiyamu muno namman sakunda toyala le katu gambia tambita men kono amantara moye kumpatu waato men nanga électiono ke yaya jammela mansakunda boyta a sonta ka boyta tilidanta ñaatonto anata no balan a ka man boyi wo balanga kono e eh, duwalle gambiya dema andu duwa mene gambiyadema nin kemelo mo ala lon ko tan kononto bota cheikh abdoulaye soane le bolo ŋo fanan lo ñaadi le ala kaciya kononte be siri alhayba be sirin a ko ni marse janita aka ka moo bee le tora bari meŋ na marsandiso siyata je a ko le tora beeti woto nin gambia tiñata abe bele torala bar mo men na mosiyata gambia abole torala ala fita men fola ja nin gambia tiñata si be tora bar ate cheikh abdoulaye suwane aba tel tola bake kata tel la mosiyata gambia woto ayo duwa men ke gambia ye ala yo duwa lo jaabele woto gambia mansakunda toyala ka tan na président bala his excellency adama baro kata bula la kabinet la kata bula debitelu mume be la kata bula masakunda dokulalu la alimamolu alikalolu n be diyaŋo la bee tooyal la k'a fo sheikh a baraka baake ye men duwa a jaabita woto n'a jaabita ñanta sabati le n'a sabati fana ñanta yiriwa le woto harisa duwa be bulu e n autorité meni bejan wala mu sénégalel ti le préfet, le sous-préfet, le président de la chambre de commerce. Chéroko, ko quoi alingam fandi nyonna. Wota ko Sénégal Alalfandi fandi Gambie la Gambie alal fandi Sénégal la. Andu atel lebe nyato Sénégal ntelle fana be nyato Gambie. nintelu ñaatonkole ñommuta meni bentelu komowol fana be ñommutalale andun sénégal mbali jaylangal tentu kaatu waato men nan be ñin kole a kolen kono sénégal nkoli aliye mutaro men ken na aliye fasaro men ken na ni damaro men ken na a ye n deemale fon be bii men kono woto sewola kuŋo me a ye meñita ali ŋan fandi ñon na sénégal nkoli ali al fandi gambinkolla le monsieur le préfet, ce que je dis, pour raccourcir et résumer, c'est-à-dire les deux autorités sénégalaises, ce sont eux qui doivent décider maintenant pour que le peuple sénégambien soit le peuple sénégambien. Tu ne peux pas distinguer un Sénégalais d'un Gambien. Si je ne me montre pas gambien, personne ne peut m'identifier comme gambien. Si vous ne vous montrez pas sénégalais, je ne peux pas vous identifier sénégalais. Car nous avons les mêmes cultures, nous avons le même langage, le même comportement, la même religion, etc. Donc si nous sommes ensemble, relissons nos pays, nos peuples, pour que le Sénégal et la Gambie soient des frères à jamais.

بيده خزائن رحمة ولا يمس وسلم فأكن ما كان ربنا كدور سبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبير يا الله يا فتاه يا رجاه يا وهاب صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد الأحياء من في القبر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيور وتسلكنا بها أنواع الصراط وتصرف بها عنا وعن الأولاد والأزواج والأحباب جميع الصراط